ma ne bébé yow boo ma woowee ma war a ñëw sa kër nga génn dem sa yoon doo ma ko wax. waaye xamal parce ah, que laa jugee daa am doon coaché nii rek cak cak. ak loo mënti ma ba ma wax la dama fay ñëw ba pare mën nga maa xaar wala bu fekkee da ngay génn nga wax ma ko moo gën ma déplacé wu démb sa fekk ma la fa. waaw imprévu rek nga yow man sama kóol moo fay moo tax mooy loolu maa ngi jégalu. ba pare waxatuma loolu ma ñëw sa kër seen paa boobu di ma riita mbale di ma wax lu ko neex di ma jamb comme kuy jamb karoot. paa boobu noonu moom xam nga rek mooy borom kër gi yaa ma gën a xam. waaw muy borom kër gi mooy borom waaw. dama faa ñëw mu bëgg maa tuutal naan maan Abdou daa yor moo tax ngeen koy wër ak lii dugg na fii génn na fii xamal naa ko nag li war a xam. muy ma j'espère projet bi xam nga li nga wax. bul lijjanti lu ma fa def ak lu ma fa deful. loolu sax yoon nekku ci. mais daal beneen yoratee bu ma defati lii. bàyyi woon sa rouge noir quoi yaa ngi ma loolu yëpp waxuma ko. ma sama jaam. waaw wuy foofu dara temps yi ma yow sax du jox ma Abdou kañ ngay yor. 72 heures moo ci des lépp leer. 72 heures n'est-ce pas mooy mooy benn jour. comme benn jour. Ah. comme 72 heures sama xaalis 72 heures. Ah. laa la may nga delloo ma ma la lebal. suba ma jox la 72 heures neex naa rek la suba la. heure bu ma la lebalee xaalis doo ma fay. dama wala balaa nga maa fay di nga ma wërloo jaalaak maa woo dinaa dox ba samay tànk hmm. dagg. non nga door may jox suba ma jox la 112 heures neex naa rek la suba la. damaa xamul nag yow li ngay liggéey kañ lay sotti. dina sotti maa ngi ci réglage. yow bàyyi maa ngi dernier réglage. waaw kii war rek yow it tijji affaire rek ngeen xool non def ak man. nan la nii ci ay moof la de. ah ma yaa ko tàmma doo teg fii. yow yoon nga naa ma fay sa torop. ça va soxna si. Ça va, ça, ça va, bien. Ça va, là. Bien, merci. Bien. Cordon 7. Comment donc Cordon 7. Comment donc 7 Oui. Et ça m'a fait là C'est sûr. Quoi Oui. Mais est-ce que vous avez dit que vous avez kër gi yaa ko moom. oui ah bon. oui. sëñ bi dafa mel déggoo ma de. Hmm. sama kër mag laa la wax de. ah yow loolu nga jàpp yow. non non non tey mag non tey maa lay formé kër gi bi ne la ñoo fii sax kër gii bon bokk na ci kër yi ma mu ñëkk a am yi ma mujjee am moom mooy loolu quoi. Ah, oui xanaa xamoo may déggoo Abdou. ah yaay Abdou. oui yaay Abdou. ah ok. ça va bien. ça va ça va. maa fi. Ah, mais dara comme yaa ngi fi rek en cas de besoin loo soxla rek ah. baax na waaw. ok. waaw. Cum. bi garmi bi. xamoon naa ni doomu russo xamoon naa ni doomu def tiima dessi bu yàggee nga e gar nga bété bété nga daanaan nga e ku yaay këréw gi nii ah, ci sama waaj xamoon naa ni xaalis bi nag dina ñëw ndax population bi yëpp dañoo xaar ma am gàcce du ma ci jot waaye nag tu m'as sauvé tu m'as ah, naa ci yow amul problème mauvaise argent bon bàyyi ah dafay nee la naa la jox ah. dayee sax bon maa ngi ci dernier réglage quoi daanaka léegi affaire yi saye moom ñoo ngi ci cappaandaw bi comprendre nga li ma lay wax hmm. allah di ci jot am na nu muy demee sax hmm. dix laa la waxoon mu koy mujjee def quinze ah quinze millions quinze nga may jox fukk ak juróom waaw kay nag damaa bëggoon benn entrepreneuriat xam nga entrepreneuriat koo xam ni day defar damaa bëgg mu seeneen ma kër goo xam ne moto lay doon léegi gi day am ay néeg ay chambre à coucher bras yi day am néeg salle de bain yaa ngi dégg bras bi tamit noonu kii bi lumière bi fi mu ne def ko ben hôtel bu mak ay soirée ak yoyu amul problème une fois une fois nga jot som bi. ci yow tu es libre de faire tout ce que tu veux. loolu amul ben problème deng nga. ay waaw wuy ma. Ah. amul ben femme bu fi ñew sank di ma laaj. ku sa yëngu. waaw maa dak dàq yaa ngi séddoo yi la. bo yi jaay abonnement yi la dañu taxawaw rek maa ko dàq caxaj. waaye bul dàq. kay. non ang kay. non non non man xam nga damay dox ci social. satalal sa dar xol ñu ngay. dugal xoolal bu ñu ñëwatee taw ñu taw non bu dee jigéen la ne ko maa ngi ci biir amul problème dégg nga voilà man ba doy xéwlu waaye bu dee jigéen la en tout cas ku may seet ne ko maa ngi ci biir te waa Real waa Real laa support ah mooy lan leneen ke mooy merengue baay wala nga bëgg xéwlu kii sama xel mi ngi bëgg a tey ci moom nag surtout Real gi mu doon xam nga Real da ngay toll béy moment boo xam dañuy tas sa yaakaar même dañuy sute dañuy wàcc bu ma naxee dina ay <laughs> bu ma naxee Nak dekat, nak dekat. Bang, bang, jalan bang.